docteur Assane Ka euh, candidat bi nga xam ne dañ ko valider démb ci conseil euh, constitutionnel par rapport ak euh, candidature panel ci élection présidentielle 2024 waaw léegi nag li nga xam ne en fait moo fa am mooy dañu jox attestation boo xam ne retard bi mi ngi amee au niveau du CDC parce que déposé nañu sunu caution à temps jox nañu quittance de dépôt boo xam ne ñu ngi ko daté le 26 décembre 2023. léegi nag bu fekkee ne le directeur directeur du CDC disponible ci jour bi euh, ñu traîneloo ñu le lendemain ñu ñëw ñu traîneloo ñu encore ba pare moom ci boppam mu xamal ñu ni lii du am benn benn problème ci seen dossier euh, da ngeen di dem complété ñu jël euh, bi ñu jotee attestation bi ñu ajouté ko ci dossier bi déposé ko ci greffe bi ñu accepteel ñu ko donc bu ñu toogee ba nga xam ne desul lu dul contrôle dossier waxuñ ñu dossier bu incomplet parce que ci texte yi même ci communiqué bi ñu def dañ ne dossier bu incomplet du ñu ko du ñu ko du ko saytu léegi yow ñu gis ni sa dossier complet na mat na te it euh, sa euh, parenage aussi ñun bi ñuy déposé xam nañ ne suñu parrainage mat na parce que ci au niveau national rek dépassé nañu la barre alors que diaspora bi sax jotuñ ko woon euh, contrôler te ñun diaspora bi déjà on dépasse la barre des 5000 parrains donc bu fekkee ne sunuy dossier comme li may wax rek division wu euh, opposition bi nga xam ne man en fait moom laay indexé du doigt euh, bu fekkee ne dañuy déposé suñu dossier mu fanaan fi fanaanaat fi fanaanaat naat fi yow amoo ci accès ñoom am nañ ci accès mën nañoo xam li ci nekk li ci nekkul bu fekkee ne euh, dañu bëgg a am benn précédent d'élimination de de candidats wala bokk euh, de choisir des candidats yi nga xam ne ñoo war a participer ci élection bi mais xam nañu fi ñuy jaar donc ñun dañuy dañuy contester nii verbalement parce que suñuy militants ak li ñu daj ak ni ñu sonnee ku ñu gis xam ne ñun candidat wu boo xam ne dafa dem sans moyen dem ak courage dem ak ay stratégie ba mun a matal parrainage foo xam ne euh, mun nañu wax ne ñenn ñi dañu leen wax ay ponkal du ñu ay ponkal mais yow nga dem ba mën a euh, nekk ci seen seen seen niveau fi ñu toll mën a déposer sa caution mu mat ñu lay éliminer ci ay euh, détails ay caution boo xam ne attestation bi bi ñu koy déposé dafa xaw a tardé te ce dossier complet je pense que bu fekkee ne am na légèreté mënul nekk suñu niveau ci seen niveau la la war a nekk mais nag euh, gis nañ ni jam nañ ñu duñu du ñu daanu dinañu taxaw xeex-xeex bi parce que dañu amoon intention amoon ambition gagné élection présidentielle yi moo taxoon combat bi parce que dañu nekk candidat wu banlieue ak couche vulnérable yi mais euh, éliminé nañ ñu ci course bi mais du tere élection bii ñu jëm dinañ soutenir candidat boo xam ne dinañ participer ci victoire am bon loolu nag duñ ko waxagum mais ñun suñu biir jàpp nañu voilà jërëjëf